parce que titre foncier bi trois quarts yi morcelé nañ ko ba joxe ko mu des lu tuuti li si kaw defe naa ne ay cinq hectares côté yooyu la ku yoroon trente cinq hectares trente et soo ko liggéeyee ba mu des tuuti loolu jaratul coow ñii di wax xam nga suuf dafa bari bayre waaye lii wóor mooy ñoom liggéey nañu ba ëg fii di jox waa Wakaam terrain yi su ma waxee waa Wakaam nag mooy Wakaam ku fi dëkk nag am na ay nit yoo xamante ne seen diggaaleek Wakaam si nekkin si jàmm si quartier yi moo tax quartier yi jox leen ñenn ñi seeni papa seen bopp ñu dëkkoon si quartier yi waa quartier ba jox ko parce que seen baay ni mu diggaaleek sunuy baay ñu ne lépp jàmm la loolu la mooy règlement bi ñooñu dañ am droit si terrain yi mais lii nga xamante ne moo ñam si kaw du léegi jamono biñ koy démarré boobu jaraaf saybatu moo fi nekk ak man ñaari jaraaf jaraaf yu sundooy ak jaraaf saybatu wax naa leen nag si émission bi dinaa leen ci wéyal ne gëléem boo ko mënuloo ñanda boo ko mënuloo ñanda doo ko fexeel di ko rey mu am ay nit si wakaam yoo xamante ni dañ rek jaraaf Youssou Ndoye dafa def dara te loolu wallaay dañuy wax lu ay fenkat lañ am na ay nit yoo xamante ne ñun si wakaam kenn ku si nekk boo xewoon rek lii dëgg gi mooy jaraaf jël na terrain yi joxe na ko teg nañ ko si yoon ñoom ñii nga xamante ne ñoo sekkoon si terrain yi ba jënd jaay si ay terrain ba jëlaat ay terrain di def lu leen neex jox seen i garbaat jox seeni doom jox seen ku ne ñooñu ñoo dellu nag ànd ak ñooña <clears throat> te ñooñu ay fere lañu woon bu jëkk ne dañuy créer frère frère amatul ak am parce que jaraaf Omar Gueye Samb keroog ba ñuy juboo keroog la ñu tas yi fi am mu yosam di sama yos frère amul wakaam état du senegal xam nañ ne frère amul wakaam ñoom bu doon frère rek maa leen njëkk a doon frère fuuf parce que 1987 si laa nekk frère 1987 nag ku si nekk frère nekk naa fi président euh, collectif des jeunes loo nekk fekk na si àll bi lu nekk daj naa ko si àll bi daanaa xëy sax yor suma vélo wër du surveiller àll bi lii ma def si wakaam wakaam ma faye kañaan li ma daj si wakaam bu ma sàccoon alali wakaam sax kenn waru ko wax ndax bu fekkonte ne tey dañu nekkoon si si temps ñoom maam damay génn yor suma jaasi rek ne góoroo góor maa man góor gu ma weddi ma dagg sa man parce que keroog ba ñuy nëbbatu ñii seen jabar leen sàng ay seer dugal leen seen ron ñenn ñi dugg si booli si kër yi ñenn ñi dugg si kaafi pitax yi pour bañ seen remar dóor leen rey leen booba jaraaf yi sundooyu mu ngi ne dàng si biti comme comme comme photo rek photo man bi ñëpp dawee maa taxaw te pourtant dama am yaay am baay comme ñoom <clears throat> am ay doom waaye sama yaay dafa wax ne képp koo xamante ne dafay bañ ab ca xam daga du xeex li ma dal du gàcce li ma dal ànd sey say ba si biir ñu orwa la gis naa si ay golo yu ay golo yoo xamante ne ñee ngi jëkk penku ñee saw ñi fële am jàngam école du jàngam du du du du coutume du du du affaire u ñàkk fayda li ma falu sama maam Aliou Ndoye moo créé Wakaam en 1601 ku mu neex ku mu naqari yàlla def na loolu yoof gii la jóge ñëw créé Wakam mënoon naa leen expliquer moom ak i frère am lu dox seen diggante waaye dama leen bëgg a wax rek ne keroog ba mu ba loolu amee dafa ñëw Wakam créé Wakam bii mu dëkk toogee la jëli ji ay jarbaatam ay jarbaatam nag buñ ko waxee ah, a njóobee na ngi si ngëyee na ngi si njaañeen a ngi si nangam nangam mais li ma leen mën a wax daal mooy waa njaañeen la jëkk a indi wakaam bu ngeen demee wakaam pour si ñëwati wakaam si sénégalais yi bu laajtee bu mbul mbul parce que mbul lu tax ñu tudde ko mbul si waa wakaam yi may déglu garabi yi mbul yooyu moo amoon si kër ñoom maamu sendooy foofu loolu moo tax mbul tuddo mbul ma jàngalaat leen seen professeur international man jaraaf duma ku ndaw waxoon naa leen ne sabar gu ma taxaw duma toog ci bank du ma jël di toog ci siis bu ndaw wala ma si taxaw pour di mën a gis géew bi déedéet un mètre quatre vingt lay mesuré ba may taxaw rek daa di gis mboon yàlla si boppam mi ma def nii nii la. Abdou Karim Fofana defu lu dul liggéey liggéeyam Abdou Karim Fofana ku jàmbaare Abdou Karim fofona ku baax. parce que nit bu xamee dëgg rek nangul ko ak mbaaxam ak niteem ku baax a baax la xam nga lu tax benn ministre manu toog ci place pendant des années ñu bàyyi la ak mbir nga jël affaire ba tekk sa tiroir ñu toog di xaar ba tey jii ñoo toog di xaar bu sima doon jar téeméer léegi ñaar téeméer lay jar mu fee doon jar fukki dërëm léegi ñaar fukki lay jar ngoon lii ñu def tegul ci yoon tribunal nag bu attee laa mu atte mu ma ne bay boo sax ñu juum mais lii mu atte moom la atte mais dafa am lenn lu lu lu nekk Abdou dafa gëm yàlla óolu yàlla sénégalais bari na ñoo xamante ne dañuy tàkkoon ne non man gëm naa yàlla man julit la man lii fekk doo dara xamul tax parce que loo yàlla bu fekkente ne garaaf dafa waxoon ne da koy jël moo ko moom sax nga ne déedéet mais jalaaf amul si dara amul dégg naa ne nag fi mu nekk nii ñu nga jël ab plainte dugal ko tribunal ne maa ma man maa wax leeg maa wax ne neeg sama kii wax ay talu ma sax loolu ñoom dama leen talul parce que amuñu dina leen leen di gis ni duñu dox lu bari si dëkk bi ku si nekk am ngay kersay génn suñu ootentee réunion léeg-léeg ñu nga daan ootentee réunion fële si almadi am na loo xamante ne boo ko nangoo def si dëkk ah, li ngeen di wax ni confinement du confinement la ñuy wax affaire coronavirus bi ñoom ñu ngi si confinement depuis sept ans cinq ans six ans du ñu génn est-ce que xam nga kenn ko si nekk sa jabar dafa wax ne alhamdulilahi rabbil alamin man fi may gis ni lu tax du ragal parce que seen jabar ñaan giñ may ñaanal yàlla nangu naka Tenny Gabar dañuy ñaan yàlla na fi Jaraaf Youssou Ndoye yàgg yàlla na fi Jaraaf Youssou Ndoye yàgg na parce que ñoom léegi dañuy teel a seen jëkkër ñu teel a ñu bise ñoo teel ranger pour dormir xam nga lu tax parce que ku si nekk dafa nga ne xale yi dëkk bi mer nañ le ba toll foo xamante ne boo dawee doxee minu ñu rey la benn ñaar ñoom seen boppa dama leen di gëj gis ko si dégg ne ne jaraaf Youssou Ndoye day moom a saaga place sanga xam nga fa laa ko saage sa armélia bu ñu dee léeg-léeg damay dem ba armélia pour ñëw si euh, rob bi mais da ñuy gis ne jaraaf nii jaraaf na bu ko defee nag boo ma defoon def si fan yële passé ma séen si armée li dama lay fekk fa nga toog rek nuyonte ñii nuyonte waaye sa nangam tan day ngay mer di dee mënuloo ma dara parce que yàlla si boppam def na kuy suma moroom wala kuy suma mag duma la may foo ma yebe parce que man pal gi ma yor du xaala laaw xaal rasululaay lay dox maa ngi dox si koo gi soow ngoon ban kenn interdiru ma may saaga kenn interdiru ma may xeex kenn interdiru may dara mais bés bu yàlla defee ma am soixante-dix ans su ko rogee dinaa rey nag rey xar rey gëléem pour mën a def jubilé jubilé boo xamante ne su karogee euh, gumbe dina am ndaw rabin dina am musique dina am danañ fa teg morceau yu sunduur boobu surtout bogo bogo danañ fa teg at Pape Diouf Pape Diouf bi nga xamante ne moom moo way ne euh, kañaan baaxul danañ fa teg ay morceau yu morceau dina si bokk euh, maam góor danañ jël morceau boobu mooy jaraaf Youssou Ndoye ak euh, euh, Yves Niang morceau bu garaaw la ma woy xam loolu yëpp dama koy préparé mais ñoom nañu xam ne jaraaf mooy président de la république locale de Wakam xam nga lu parce que lébu bi gi si jamono am na moment dañuy wax ne <coughs> république bii nga xamante ne moo fi nekk mooy lébu gi quatre communes yi fu ñu ko teg lu ne def nañ ko fi mais tey jii fu mu toll nii dañu range yooyu daal di ñëw ci ginnaaw état du Sénégal état du Sénégal na bu ñu toogee ba ñoom seen bopp ñuy délivrer këy man d'accord naa ku nekk coow yàlla sax am na ay nit yu taxaw ne yàlla amul mais dañ si d'accord duñ leen d'accord nañu ànd liggéenti gi leneen parce que suuf si euh, euh, ay cinq hectares moo si des ngoon soo xoolee vingt six hectares yi nit ñi dëkk nañ ko lii dox ñun mooy képp ku dugg si titre bi ku fa dëkk rek ku fi ku si ku nekk rek di am sa titre foncier boo xamante ne individuel ndax dégg nga fi ma jëm ma wax la erreur bu ñu defaatoon lii ma li li leen naqari si man dañu bëggoon ma ànd si kenn du fi dëkk kenn du fi nii kenn du fi jaay waxuma ñu bees ñi de golo yi waxuma leen mais ñi fi jëkkoon nekk toog nañu réunion ko leen yéen ba ngeen di servir fu ngeen nekkoon yéen a woon si ay ay ay ay ay ay mbir ñee nga woon Diourbel ñee nga woon Casamance ñee nga woon euh, Kaolack ñeen nga fu ne mais fa ngeen doon finaan si dëkku jàmbur ngeen doon finaan wala déet tey ngeen ne Wakaam kenn du lan waay anay dem leen fële keroog bi yàlla defee ma falu nag boo gisee ñu daasaat seen i jaas yi c'est parce que xam nañ ni garaaf day bàyyi àll bi ku mu ne jënd mooy dëgg am na ñu leen jox kër man man ñu ko fay am na ñoo xamante ne ju leen jox kër cinq ans six ans ñu sax fay waaw te kooku am na kër am na seen kër espace boo xamante ne war nañ ko mën a defar ba ay sërëm ak ñooñu kenn ku nekk mën a dëkk si place touché lu mu leen defal dama lay bàyyi nga uti uti uti uti gi client boo waxaalee moom ba d'accord man damay taxaw pour wax la ne la àndal ak moom ngeen dem fële banque ba mu fay def nañ si sax benn heure loolu may def noonu di ka kii bu erreur sax si ñoom ay golo lañ dañ jëm sa banque ba porté woon naa plainte banque bi defe naa ne procédure bi des na mais dama porté plainte banque bi si lan moo tax ñoom ñuy jël di tiire ñuy fay seen terrain si kii bi xam nga loolu war am Sénégal parce que règlement banque defe naa ne signé si loo xamante ni mais da ngay waaru mais xam naa ne euh, léegi banque bi damay jaay doole. mais loolu boo xoolee ma def ko c'était pour wan Sénégalais yi nii benn banque am droit nga engagé ko ba pare beneen nit jóge fa la am ay éléments banque bi c'est pas possible baaxul rafetul loola ñu ko def ko traque mais kuy jënd suuf doo ko jënd si si doo ko jënd si këyit wóor bii ñu jëndee kër yi boo ko jëndee Euh, euh, euh, nag dangay am nooy doxe boo ko jëndee ñu defal la permis d'occuper fay nga fale ñoo waaj waa ji si xaalisam ñooñu xaalis yooyu moom la ñuy defaree ba génne fi yenn baraak yi woon si dëkk bi ñenn ñi dañu demaat seeni kër tabax fa seeni rakk yi jigéen ñi amul woon kër nekk ñu jox leen ay nekk yow mii doon amul woon foo dugal jabar nga dugal fa jabar dëkk baa ngi si jàmm et puis affaire ma di la wax maa ngi ciy jàppanteek soxna may mun a nduur bi passé téléphoné fii laa toogoon sax de ñuy waxtaan mu nekk si émission ak monsieur le ministre monsieur le ministre <coughs> di wax ba ma ñu toll si man ma war a wax ma ah, Youssou Ndoye nangam nangam am nga loolu du cër parce que yàlla si boppam dafa la wax ne nit man nga juddu sa baay tudde la Yuusu Ndooy mais boo toogee ba yàlla ne nag ah tuuroo nag maa koy yokk def si jaraaf boo ko óolulee dafa mel da nga mer parce que dafa it yàlla da lay pini yàlla bu dogalee neel wii wala déet mais ne du ma la oo Yuusu Ndooy et pourtant bu dee yegg man ni Yuusu Ndooy la may owee jaraaf la may owee feebarul doful seulement dafa am loo <clears throat> nit boo dëkkee fenn da nga leen war a ruus leen war di déglu dañu war di ànd may mun a wakaam dëkk <clears throat> wakaam la dëkk nag waaye bu toogee si télé ma wax moom ba bàyyi daa di gëdd bàyyi ka film ay yëfam dem suma yoon moom warul wax ne alors euh, boo leen bàyyee dañuy sàggante ñun dañuy ay moromam may mun a papaam ñoo nekkoon fii si mbul may dawal senkal muy dawal senkal may dawal pënë muy dawal pënë may egaat muy egaat bon war na ma mën cër cër xam nga yor télévision di cappi cappi te xamuloo loo war a def looloo ko dal li si lii ma mën a wax loolu laa mën a wax parce que leneen lu ma fii du fi rafet te xaju fi adduna kenn du ko yenu nanu fonk suñuy baay fonk suñu yaay xaalis nag du seexlu da fekk kenn koo xamante ne aw yaramam neexul xaalis na dërët ci loxoom bu yendoo foofa mu teg ko fële mu fanaane gi Mali bu ginnaaw léegi xaalis ba daal di ñëwaat Sénégal génnaat Sénégal dem feneen doo ko xam boo tax nanu réglé parce que yii ñuy def si télévision yi ku wax si rajo yi sooy interviewé ku la mag ëppalay sagar gën laa xam ëppale ay bagaas xam ne tournant bi rek mën na la def leneen da ngay kay respecté li may wax fii nag ma pour tàngal xolam mais dama wax pour que mu réfléchir xam ne jaraaf Youssou Ndoye mii du ko ma war yeb moom du ma yeb mais yebel du ko gis am na nag foo xamante ne bu ma fa yóbboo ah bu boobaa day dinaa def li may def te du rek kenn du tus parce que bu dee wax dinaa ko wax bu dee def dinaa ko def mais nag pour le moment sama doom la c'est ma fille waaw